parce que journée bi liko waral moy dañu amone ben mouvement bo xamné ne ñu ngi yëngu sur le plan politique depuis Covid bi ba légui en 2019 ñu arrêté activité yi yalla def nak wax deug yalla sun dom domu ñoro sun mbokk mbokk wa ñoro mbokk wa Sénégal di euh, Mamadou Moustapha Ba ministre des finances tax ñu bàyyi woon activité yépp

yàlla def mu doon doomu Nioro ba pare nag doon sama doom xam li ma la doon suñ doom xam ma la tey ñi ngi gis fii Nioro ñëpp ku nekk la la Moustapha di defal sa morom du ko yëg di jàppale waa ñooro waa Sénégal ku mel noonu nag soo ko amee dañuy sumeeku jàppale ko xam nga Modou Moustapha lan lañ bëgg ñooro mu am fi 100 pour cent derrière Amadou Ba te aussi boo boo ne seen xel dal. man kenn du ma daan dégg ci plateau yi leen ak leneen mais actuellement Modou Moussa Ba lépp ku ko song wala leneen leneen bu soobee yàlla di ñu di ñu dégg di ñu gis di ñu dégg di ñu gis parce que ñooro lañ dëkk juddoo fi yarang yàlla may ñu teraanga ñu indi teraanga ñu ñooro wax dëgg yàlla Moustapha sagal ñu Moustapha nag dañ koy sant di koy gërëm moo tax ñu ngembuwaat pour dugg ci mbiru politique te nag na ne fi nekk nii macha allah bu tëddee na nelaw fi ñu bëgg jëm ak moom no mun naa xam sax début bi mais fin bi sax mënuma ko parce que tey xam nga lan lañ bëgg Amadou Ba ñu élection yi dem ba jeexal Modou Moustapha jël lengay doon président de la république billahi wallahi taala parce que sag la ci ñun foo dëkk Nioro Nioro léegi ñëpp ñu xam on est fier de Modou Moustapha Ba di koy sant di koy gërëm di koy sant di dalal xelam nag ne ko actuellement li ñu wax nii du mbokk du dëkkandoor du jeunesse bi ñëpp ñu ngi ci gannaam pour jàppale ko pour le triomphe de Amadou Ba te parce que xam naa ne dañ am ci moom yaakaar yaakaar googu nag ñu am ci moom du mos a tas parce que ñun fi mu nekk nii takku nañ ba incha lépp loo xam ne bëgg na incha allah yàlla dina ko ko defal. waa Nioro daal li ma leen di wax mooy ñu xoolaat seen bopp regroupé wu bañ a def ay pàcc pàcc pàcc pàcc sonnul day sonnal nit ñi suñ defee benn bloc mu ne ma luñ songu daan ko luñ songu daan ko te Moustapha jiwul ñu ñuy séparé wu jiwul ñu ko parce que élection yi di passé ñu bëri na nañ peut-être déception la que malgré ñoo gagné woon à plus de 60 pour cent mais déception la parce que tey waroon na mën a am lu mu day dee 98 pour cent mais nag moment ñun ñii kenn dugguloon ci politique kenn dugguloon ci man tey dama la bëgg wax benn affaire bi ma waree ñëw dugg ci politique ba léegi waxuma Moustapha ne lii dama koy def su ko yëgee yàlla ak euh, El bii moom la parce que li nga bokk bul xaar ñu wax la li ñu wax la la te gis nga Modou Modou mustapha liggéey bi du ñoor a parce que ki di sama xarit di mustapha job lim nara def kaolak moo upp téeméeri junne yoon lim nara def te xaarul ko nak ci dara parce que yalla may nako lo loo ni tay mom ma sha macha allah moom mooy loolu te dinaa fexe Moustapha euh, gis ko recevoir parce que liggéey bi mi def kaolak dafa muccu dafa muccu day moo top li tay bu ma ko c'est grâce à lui moo ci sonu ñama Ali lan ngay xaar lan ngay xaar mais nak lu jot yombu

a un un plan bu nekk ci Si on qui a Kaolack Nioro Fatick dañ ci bénéficier wu a bari donc pour nga qui euh, commencé il faut mu am jeexital son excellence le président de la république wax na que day mais continuité moo war sur la bonne direction ñi ne xam la commencé continuer Sénégal

Amadouba, non pas Moudia le premier tour mais pourcentage bi koy fall. li ci entre Kaolack et Nioro c'est ça la vérité pour le dire que nous sommes dans les jours à venir pour faire une démonstration de force comme nous l'a fait finir. Vous nous bu yoo xam détail Le concret le l'air, parce que politique sociale la avons ay mbokk am ay celui qui est à ma droite qui est monsieur c'est un responsable politique APR à Kaolack qui a longtemps œuvré n'est-ce pas qui euh, liggéeyu Macky Sall donc nous tooguñ ba heure bi pour doog wax ne nangam daño Das franal. li ci dess rek moy woné, mais ci kan lañ koy woné? derrière le ministre des finances et du budget Moustapha Ba nga xamantene mom le président de la République moko jox confiance té mu yagg cheminé Amadou Ba depuis qu'il est le directeur du budget il était avec euh, monsieur Amadou Ba monsieur Amadou Ba pousse si mu nekk premier ministre il mu remplacé. remplacer donc loolu donc c'est pas gratuit